waaw mu ngi entraînement la. ngi ñëw sax yow li nga loo koy conseil lan nga bëgg mu def lan ak lan. jàpp jaay cum jàpp ci bi. ab sa day di kalam. fa flaj ay waay. <laughs> après waaw. après waaw. nga mu toog kay. wax ja jeex ah. waaw biir bi balaa eh, moo mën faraj faraj yooyu. Eh, ñaata minute nga bëgg combat bi def. Ah. ñaata minute. deux minutes. dix minutes bëri na de. waaw. dix minutes deux minutes wax mais yow. jaafi jaafi jaafi. Fallou Fallou ñaata seconde. Balla Gaye mënul bëri dix minutes biir bee tax. ñaata seconde. Ah. ñaata seconde nga bëgg Balla daan. 4 secondes. 4 secondes. waaw déedéet kalma nax. Fallou 4 secondes ah. waaw 4 secondes moo ñaar wan ma ko sa loxo wan ma kaat sa loxo. Gris Bordeaux Gris Bordeaux. Fallou Gris Bordeaux nu mu def. Fallou. mais Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye moom sa biir bi. bàyyil Fallou waaye. dégg nga Fallou nee na Gris Bordeaux ne bàyyil noonu bàyyil ma nopp bàyyil noonu. Fallou Balla Gaye Gris Bordeaux ak Balla Gaye say gaañ lañ. voilà ah. waaw ngir boo doon Balla Gaye nga ne nga ne nan lay def yow. nga boo ko doon digal lan nga koy pour entraînement yi. entraînement yi. waaw yi. ak lan. ak biir bi ak biir bi waaw ak lan. biir bi nag. faar yi faar moom faar yi. faar yi faar di nekk. waaw faar fii. waaw. ak tëgg. dëgg la non dëgg. yëkkatu waay bay. ay waay day ay. door ay door gauche droite. ñun dañu ne. gauche sigi ak mbëkk mbëkk nag jaru muy am. comment bu la mbëkk bokk Fall Fall Fall amul ci. Fall ñëwul Modou Lo. non non non Fall Fall Fall Modou Lo de. yow xul. Fall dégg naa day nekk di sóobal di rey lam rek mais Modou Lo la faral. man am booy dëkk Grand Dakar wax nañ ma ko. gin cee may leen ko. Balla Gaye kese.